Walfadjri la ñuy jël doore ko ak titre bi mu xëyee mi nga ak ubbiteg école 2017 bi xëy ñu xamal ne yëf yi am na waaye daanaka ci problème la amee ndax bari ay jafe-jafe yu ñu nemmeeku ci mbiri ubbi jàng tey yi ñu doon wax Walfadjri rek ni mu ñu ko waxee mooy mënul nekk ci eh, Sénégal rawatina ci capitale bi diwaanu Thiaroye yoo xam ne dañ ko fa sàcc ci valeur juróomi million lu aju ci ginnaaw raay lu toll ci 300 élèves yi ñu orienté ba pare te kon note d'administration ci gàttal amul benn këyit buy wane ne dañ leen a transféré foofee ba tey yéen kaay beeg ñu ko waxee mu di mbiri Parcelles Assainies ubbi tey jàng tey ak nam ko fa jàngate loole lépp yéen a kaay bi xëy na ci observateur moom it xëy moom i le mbir mu di ubbiteg école gi ouverture des classes 2017 daanaka ci ay dënn yu jóg ay mer yu ni mel yéen a kaay bi boole kook jeu de mots ba utiliser sax làkku espagnol bokk na ci clash bi am ci diggante état bu Sénégal ak Yafou Selim bokk na it ci waa SAES e yi nga xamante ne ji ñoom ak rectorat bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ci bindantey communiqué ak di teesante ci ci gis na ci euh, ay dënn yu jóg vox mi nga xamante ne ne ji kon doon nañ ko amal jëm ci régler coowal yafu silim ak yëf yàkk ni nga xamante ne ci échec bi mu mujj yéenekaay bi gis ne lu toll ci ñetti junniy élèves yu doon jàngee ci yafu silim seen ëllëg tàmbali naa tax suuf ndax amul benn solution boo xam ne tukkee na ca ndaje ma le quotidien moom it loolee la xëyee échec négociation avec l'État yéenekaay bi nañu kon horizon bouché pour yafu silim ci gàttal yoon bi nga xamante ji amoon nañu euh, kilifa bëgg mooy administration provisoire biñ ne ñu ci la ñuy teg école Yafu Silim yi ñu wéyal loolee dem ca ba jeex enquête gis nañu administration bu école Yafu Silim casse-tête la ci gis lan ak lan la yéen a bi faram fàcc na ko boole ceeg sax kàddu yi maître Antoine Bengue muy xam le mbiri Yafu Silim dossier la boo xam ne état bu Sénégal mënu ci dellu gannaaw maître Assane Dioma Ndiaye di wax ne ak lu mën xew daal nañu xam ne lii yàqu kon yàqu na ba sax kon ba dafa mujj gedd ndaje ma bàyyi ko moom Serigne Mbaye Thiam mu euh, toog jaaxle Madiambal Diagne bàyyi ko fa lan la ko wax mi ngi ci biir Libération réew mi quotidien ñëw ak ñun ci parti bii di parti réew mi mu di Idrissa Seck ak euh, partem bi yëf ci tas la jëm nii la ko waxee gaañi ñi ngi bàyyi ñi ci des ñi ci biir parti bi gisuñu ci seen bopp am lu leen naqari moo tax journal bi jàpp loolu beneen journal bu xëyee ku jàpp gémmiñam moo di las mu njëkku euh, a ñetteelu mandat yéen kaay bi nañu Mounir Sy kon weddi na fan la ko teg leeral na ko te mu ñëw ñun ci Manko Taxawu Sénégal gi nga xam ne dialogue bi président Macky Sall woote ànduñu ci yéen bi nañu ginnaaw Abdoulaye Wade waa Manko Taxawu Sénégal ñoom it rejeté nañu appelu Macky Sall boobee Déthié honorable député mi ngi wax ne ñoom duñu dem di toog waxtaan ak président Macky mi nga xam ne amul kaddu lu mu mën na caa génn du respecter sax ne keroog bi ñu jokkalantee léngee diggante Abdoulaye Wade ak ki nga xamante ne ji moo di Macky Sall moom Birima Mangara ma nga fa woon taalibi Serigne Saliou la boo xam ne amul la benn dig maanaam frontière ci këri diine yi ci Sénégal Pape ñu jeexal ak Vox Populi dellu ca ma nga nële ci xët mu njëkk mi benn waay boo xamante ne ji wala bokk ko xam ni dafay gérer wari gérant wari la yéenekaay bi nañu ngir gérer mariage am ngir préparer ko moo tax mu détourner boursu benn étudiant Pape bu jigéen voilà de l'argent lui ferait plaisir merci Mamadou Mouhamed Ndiaye ñu ngi lay bu baax ci euh, revue de presse bi euh, replay bi ci YouTube bi slash